lu doy ne jaajëf Rokhaya Diagne sëñ Bass Abdou Khadre c'est pas n'importe qui sëñ Bass Abdou Khadre il est puissant dégg naa dafa wax sax ne mi ngi rëccu li mu tabax ci ay kër bu sañoon da koy tabax ay juma Assane Diouf moo fi génnoon di wax ne warul nekk milliardaire be patata xaw ma milliardaire la xaw ma du milliardaire Mamor mbay ak ñoom dara taal kër Assane Diouf Assane Diouf dafa rëcc te dara fekku leen ci ñoom ma mbay ma Mor bay li ñuy def bu doon amerique dañ leen di japp mais Sénégal dañ koy def dara du leen ci fekk bu ñu rayon Assane Diouf dara du leen ci fekk kenn du leen tek benn fan sax du leen ko def sëñ Bass Abdou khadir c'est pas n'importe qui mais président Sonko dafa dem ba Touba mu teggi sëñ Bass Abdou khadir ba ma Mor mbay génn di attaquer seul président Sonko di ko wax di wax ay ferool reewande yi boo koy def xaw ma nag et cetera et cetera Sonko amul ku muy ragal ci suuf ci suuf nitu principe la doomu Casamance la maa ngi dégg sëñ Bara Ndiaye di wax ñu ngi fiy jàpp di tëj ci ay sàcc li tax moom gëmul Sonko li ñu koy jiiñ du moom parce que mosuloo gis joolaa bu ñu jàpp bu ñu jiiñ sàcc boo demee rëbës doo gis joolaa bu ñu ji bu ñu bu ñu jàpp parce que dafa sàcc doo gis joolaa bu ñu jàpp parce que dafa siif xam nga lan ngay gis joolaa boo xam dañ kaa jàpp parce que dañu rebelle la wala day xeex da xeex lu tax ma tuddee sama bopp njaagu Sonko xeexu njaagu bu jeex génn naa ci waj njaagu mais ñun ñëpp suñu kër amoon nañ ay temps njaago yi ñooñu doon fóotal liggéey bu metti waaye njaago bu lay fóotal boo juumee ba mu commencé fóot nga indiwaat beneen t-shirt ne kaay yokku ko ci yàqu nga da lay indi xuloo la lay indi njaago xeexu njaago du jeex xeexu doomu Casamance du jeex sonko fit bi nek ci mom mo nek ci succès masra amul lu muy ragal seen bas abdou xaadar kan moko ko ñeme tëb fi fi sénégal nga dem ba touba teg gi seen parce que sonko dafa am ay principe parce que xeyna gis na ne ba mu ñëwé ñëwee ki euh kii euh, euh mutakha recevoir le gisu fa sëñ bass peut être lool la parce que man ma ngi lay wax est ce que sëñ bass mi ngi fo wone xeyna na ko metti te pourtant Macky Sall bu ko sëñ Mountakha di recevoir Serigne Bass day toog peut-être loolu la Sonko ne comme ma ne ñëwul man tam du ma ko seet mën na ne mën na am dafa am empêchement mën na am lii mën na am laa mais ñëpp gis nañu Serigne Bass Macky Sall ba muy reçu ba muy inauguré hôpital bi Serigne Bass dafa doon moo waxal mu ne ko yow sa diggante ak Serigne Touba Serigne Mountakha amul dara lu ko mën a yàq man wax jooju ba nga ko déggee. dama ne ah waaw lii moom doy na waat amul dara lu mën a yàq sa diggante Macky Sall ak ak ak seen seen Mountakha waaw mais seen Mountakha bu la nee bul def troisième mandat nga ne nga dëgër bopp ne da ngay def troisième mandat mais loolu mën na yàq seen diggante seen Mountakha bu la waxee ci affaire Adji Sarr tegal lépp ci suuf tegool lépp suuf ba seen Modou Samat génn loolu mën na yàq lii seen Modou Moussa Dieng wax est-ce que dëgg la Macky Sall dafa dem Touba di fa wax waxu troisième mandat sëriñ bi ne ko tegal loolu lépp ci suuf mu insisté mu ne ko bul bul bul indi fitna mu insisté mu ne ko ah gor am na loo xam ne boo ko waxee xam nga waroo ci dellu ginnaaw et cetera bu dee loolu dëgg la Macky Sall daal di génn dem xaaru fa reer xaw xaw ma añ mais loolu est-ce que suñ kon suñu ab basa Abdou Khadre mën naa am genre wax yooyu man nag bëgguma spéculer mais en tout cas Sonko teg gi na sëñ Bass Bass Abdou Khadre te sëñ Bass Abdou Khadre boo gisee def na li mu war a def ndax sëñ mu taxaa li tax waxalul boppam Macky Sall toog naan ko sëñ bi man sa doom laa patiti patita waaw kay te sëñ Bass Abdou Khadre da ngay xool ba mu ba mu fi nekkee ba léegi dafa yàgg papam defe naa ci la commencé Bass papam Abdou Khadre après sëñ Sidi Makhtar defe naa après sëñ Mountakha kon moom yàgg na fi am doole dafa am puissance xam politique xam rouage ku ku mel noonu Youssou Ndour ne ko man dama laa fan Youssou Ndour ne na ko man mii damay way xale yi topp ma fan mais man seen Bass Abdou Khadre yow laa fan Youssou wax na ko te Youssou Ndour rek demaat na seen Bass Abdou Khadre toog ci suuf seen Sonko ñëw teggi ko ba Mamor Mbaye ko attaqué Sonko amul lu muy ragal dafa xam fu mu teg ko ci yoon yéen nag activiste yi di xeex ak Sonko teg leen ko ci yoon waaye tax toog toog di wax sëriñ bii lii sëriñ yi ñoo ñu tànneel sëriñ lii loolu amul njëriñ jigi dama koy seetaan jigi dama koy seetaan parce que ku bëri xam-xam la ku mën a def émission mais li muy def mere sëriñ yi du sëriñ yëpp am na ci sëriñ yoo xam ne li muy wax ci sëriñ yi du sëriñ yëpp mais booy attaqué bu la doo attaqué sëriñ yi doo attaqué sëriñ yi parce que sëriñ yi ñoom dañoo juddu nekk seen seen baay nekk sëriñ am ay taalibe ñooñu seen doom ñëw topp leen di leen jox xaalis di leen def lii di leen def laa mais bu loo leen ci wax da nga leen di xas da nga leen di sonn sëriñ yi seen yoon nekku ci booy xas xasal sénégalais yi di dem màngal Touba chaque jour mais ñoom am nañu droit ñu topp sëriñ bu dee ñoom yow da nga jàpp ne dañoo réer sëriñ yi di leen exploité di leen liggéeyloo ci tool yi di takk seen i doom te ñoom duñ leen may seen i doom di leen wax voté leen Macky Sall mais loolu yow yow ñooñu sénégalais yi la concerné te sëriñ am ci fi njëriñ ndax lii buñ fi nekkul woon régulateur social yi ñu fi nekk bu dul woon demal ay Côte d'Ivoire yooyu amuñu loolu xëy na loolu tax ñu am ay GRC bi te sëriñ bi ñoo yor doole buñ demee ba war a atte attention sëriñ Bass est très puissant mais Sonko est plus puissant que Serigne Bass fi mu nekk nii sëñ Mountakha nag il est plus puissant que Sonko sëñ Mountakha il est plus puissant que Macky Sall ñoom ñaar ñëpp boo leen boole woon sëñ Mountakha moo leen ëpp doole te kii nekk président dafay neex sëñ Mountakha sëñ Mountakha buy wax carte gi di leer mu tax Macky Sall dem fa li tax opposition bi dem fa vendredi Macky Sall dem fa samedi dimanche nga gis fa Youssou Ndour gis fa Bougane lundi xaw ma nga gis Malick Gakou noonu ci dimanche lu tax daaw ambassade waa France militaire France ne ko léegi ñun li ngay wax loo nga wax la def fa waa France dem fa Auchan ñëpp généraux ay généraux France sëñ Mountakha moo yor doole bi te carte gi moom moo koy leeral du Sonko du Macky Sonko bu ko Macky sàll ne doo bokk mu ne damay bokk bu boobaa il faut que ñu xool lan la Sëñ Mountakha di wax est-ce que Sonko dina ko déglu c'est ça la question Macky Sall bu ne bu daree def dara loo xam ne dafa nar a taal réew mi Sëñ ne ko ah forcé de troisième mandat am nga ci droit conseil constitutionnel nee na d'accord la am nga ci droit waaye ba ba conseil constitutionnel waxee nit ñaa ngi ci tali bi rek di taal nit ñaa ngi dee wala ñaa ngi nii ah Macky dama lay jox ndigal waxu troisième mandat bàyyi ko dinaa la utal porte de si nga dem ci jàmm ak salaam loolu lay wax Macky parce que bu bu Sénégal takkee moom ñun moom ñooy perte bu boobaa Macky dina ne ko waaw wala déedéet bu ne ko déedéet dina génn comme li Abdou Samad waxoon ah ñun de wax nañ ko. bàyyi mu sedd ci affaire Adji Sarr yéen ngeen wax waxuñ ñu ngi wax de sëñ Mountakha ba mooy arbitré moo tax ma ne gars yi affaire yi foog ñu teg ko ci ci ci ci yoon daal Macky Sall moom li mu war a def dina ko def pour toog fi bu waree jël ay gendarme dugal leen ci assemblée bi dina ko def xam nga bu waree xëcc Pape Diop dina ko xëcc bu leen ko mere li mu war a def lay def Macky Sall Sénégalais la. dañuy ñaan yàlla na gars yi il faut ma conclure dañuy ñaan yàlla fii ak 2024 Macky Sall